أهلا بكم شيخ أمار فدف accident bu métti bu garaaw ci autoroute Ila Touba bi niki démb allah vox populi moo ñu ko xamal xaw tuuti konoon aw hay musiba mbab ba kumba xamaat ci tali bi ndax Cheikh amaar fërëj ci ña fa nekkoon ñëpp am ay gaañu-gaañu Cheikh Amar rawale nañ ko hôpital bu Ndakaaru nee ñu nag tànk yu damm moom la ca jëlee te bakkanam nekkul ci xottu gerte ña seen bakkan nekk ci xottu gerte mooy fanweeru doomu aadama yoo xam ay gaañu-gaañu yu mag te métti ci beneen accident bu am démb ca diiwaanu Mbuur l'évidence yéene kaay ñu ko xamal dal vox populi na ko ma yokkal la ci juróomi soxna ñoo faatu ci accident ba ci ab biis lañ nekkoon bu jógee woon Dakar jëm benn dëkk ca Kaolack ndangaan accident bu mitti te daw yaram xamit gaañu-gaañu yu bari l'évidence yéen a kaay ne lu ëpp nag tuuru tali bi li muy faat ci ay bakkan ëpp na accident yi jégg na dayoo oto ba këpp na oto we mbëkkante nañ ki fi bàyyi oto jël avion moom dugg ca mu jëlee ko bitim réew delloo si ko Sénégal du kenn ku ma njiit réew Macky Sall gannaaw noppalu wakaas yam nekkoon démb la ñibbisi réew mi yéen a waaye na ko wóor ne moom Macky jafe-jafe mbënd mi ci réew mi Dakar Dakar mbooleem diiwaan yi kër yu daanu yoon yu dog yàqu askan wu nekk ci ay école xamatuñu fu ñu dëkk jafe-jafe yi di mel nag ñu ngi ciy xaar ndimbal yéen kaay bi ne conseil des ministres bi di ñëw Macky dana jël ay matuwaay ci inondation yi ngir jàppale askan wi moom Macky Sall nag xamul kenn ku koy jàppale ci ñi ko wër ci wàllu politique déedéet gëmuñu ko seen bopp rek lañ nekk ak nuñ fexe ba remplacer ko du samay kàddu Maodo Malick mbay bi jiite mouvement taxawu Macky wax ak askan wi moo ko wax ci l'évidence yéen kaay nee na politique ko wër bëri nañ waaye ñi koy gëm Macky bariwut de jàppale wuñ ko de ki jàppale wut Macky Sall te nëbbut ca dara te bu sañoon tay mu joge ci nguur gi du kenn ku may Karim wad ayaw setal juma ju yes masaliku jinan dañ wara dalol dalool Karim Wade bañ na na bayam ablay wad du ci dem ndax fay bañ ablay wad su fa demee dajé fa ak Macky Sall Dakar Times si ñu ko xamal way yéen kay bi nee ko bu sub l'islam bu mag bobu sa baay ji Ablaye Wade nga bañ na du ko fekke loolu mom su ko njum te lu mag la may leer la mel lu leer ba yegg ci nañ ja moy na soxna Mimi Touré sekk na waxtan wu yaatu bayiwu dara ci tolluwaayu réew mi moog wàllu soleil yéen a Ai, eu é sei. Fall tolluwaay APR mi mi wax na ci opposition bi ku jéggi mi mi wax na ci taxawaayu soxna yi mi mi wax na ci élection locale yi mi mi wax na ci jëwriñ ji di Aliou Nguy Ndiaye na ko may ma mi mi ma yokkal la ci gis nga élection locale yooyu doxal nañ ko leer na fi mu toll nii ku jigee nguur gi nag ñi ngi waxtaan ngir xool ban dat lañ koy xamal ak ndax dañuy wotee fal maire comme ni ñu falee président direct wala boog fa ñuy def indirect jël ay diiwaan fal fa maire yoo leen ñàkk pexe moo tax ñu nekk maire l'évidence yéene kaay ñu ko xamal ba tey le soleil di ñu tamit ci dialogue national bi wala man nak loolu la doon xaar gis nga dialogue national bobu tas na tasare na opposition bi ku jegi ndax mbooleem opposition bi ñi wuy ji won makki tay nga ci ay jafé jafé ah yow seetal Issa Sall kaj ji nañ ko football dak ci biti ci parti bari pur Oumar sar bu PDS mom ñang koy waja tirer 6 six mètres nga ci ay jafé jafé PDS yene kaay bi yok ci ne ku jegi ci seen biir sax ñi ngi rayante ndax Ousmane Sonko tamit dalon na ci kaw ñaawlu ngom yi demone fekk ji makki ca dialogue ba ñu tontu ko nako yow doo ñu li ñi def ño tay wuy ji makki la seen kay deggal ko na dialogue tasma sanal bi tasma PDS tasma pir PUR bu Issa Sall astafurlaay Serigne Moustapha Sy nee lolu jeexna Issa Sall jiitetu PUR secrétaire rek bureau politique lépp abanta intaha ba tax tay moy yene kay na Issa Sall nak gañu ñu koy pousse ngir mu taxawal parti bopam ay farandooram lolu lañu gis ñom waaye nekk fi nan pir du daerah ba ngay jël say taalibe lu la neex nga def lolem pir parti politique la dugg na fi na fa lu ko fi jar na def grand pir ko defee petit PUR dee bàyyee sëñ Moustapha ak petit pir li pir Sénégal moy ciowal contrat pétrole yi tay nak enquête yene kay jox nañu xibaar bu bess Thiès nee na kërug liggéey France gi ñuy wax Nexans ñëw na bokk ci génneem gaz bi l'observateur moom xëy di leeral li tax plainte Aliou Sall ci wàllu pétrole bi ak gaz bi mujjut fenn ni léeba nag lu ba tey yéene kaay bi di ñu xamal tooxi doona toppale njublan ci wàllu suuf te ay ponkal kilifa yi nekk ci nguur gi am ay ndomba tànk ñoo ko def a yaaw seetal dëkk ba ñuy wax sàngal kaam suuf soo xam ne ISRA ko moom moom la ay ministre ak ay général ci armée bi ak ay ngonk kilifa yu mag ci réew mi paacoo séddoo ca seen biir foo ngeen ne lu rafet na laneen lu rafetut bu ay kilifa kilifay réew mi defati jëm ci wàllu suuf tappale turbine yéen a ñu ko xamal a yaaw seetal dali fort seen maire ba ak kilifa yu bokk urbanisme cadastre impôt domaine ñoom la waa descos jàpp ci ak mbuxum suuf buñ jëfandikoo ci anam gu jaarul yoon la mu ñu xamal moom l'observateur mooy yónnee xaalis jaare ko ci internet bi diggante orange monnaie wari ak jooni jooni ñàkkante guerre bu métti ca la ñu nekk yéen a kaay bi nag nee na orange monnaie 2018 bi am na lu toll ñaari milliards suñu xaalis jooni jooni moom fi mu toll ni fa dee ki ba bëgg bëgg a dee mooy Sadio Mané ngeen dégg na maa ngi ci tàggat yaram Salah fa ko bañ a paas bal bu mu waroon a dugal waaye seen entraîneur ba capitaine équipe ba ak kilifa yu mag nekk Angleterre ci wàllu football ne nañ wax na dëgg moo yëy mer Salah fay fontu fa soxor bëgg biu boppam daaw looloo tax sax ñu ñàkk championnat ba stade yéen kaay ne moom Sadio Mané nag footballkat bi gën a xarañ ren FIFA génnee na ci Sadio Mané gannaaw bu ko UEFA defee <laughs> nee gut tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na benn xale bu góor moom la nu jàpp bett ko moo ay moroomu xale yu góoram ca stade Aline Sitoé Diatta ñu ne yooyu yaay dañu daan def yi fu caay-caay ay góor jigéen la ñu allah l'observateur moo ñu ko xamal yëf yaa nga amee ca diwaaru Ziguinchor aaxiru zaman dëgg ci la ñu nekk xam nga ne loolu ñaaw na te bon waa ji ñaawlu nag kasoog rëba chambre neuf la fay am ci métit mi ngi ci direct info nee na chambre neuf aw fas sax boo ko fa dugalee la wax na génne ma ndax ay jafe ak métit nara nekk ci ay jafe-jafe mooy ay kilifa yi nekk ci nguur gi jël suñ téléphone réew mi rek di wootee nu leen neex Macky tëj na robinet ba fi mu toll ni forfait Macky moo xew les écoles yéen a kaay ñi ko xamal ministre ak ministre d'état yi trois cent mille ci téléphone ministre conseil yi deux seen forfait procureur yeeg kilifa yi nekk ci wàllu yoon di atte ku nekk am nga sa forfait ba ci chauffeur président Macky Sall moom vingt cinq mille la am forfait par weer waa ma ne leen de